même chose bu ñu jàng donc wax nañu mën a joxe àtte boo xam ne euh, moom moo moom moo jël kon ñu jël kii ci ligne bi dellu siwaat allo ah. waaw euh, waxoon nañu leen ne dinañu jokkoo ak ñenn ñoo xam ne dinañu wax ci li nga xam ne moom mooy décision bi maa ngi la koy wax euh, Albourakh sànq rek ne am na ci koo xam ne nag moom Euh, Abdou Khadre Ndiaye la tudd nekk expert en diplomatie et relations internationales nekk itam juriste bu ko defee rek nga daal di koy euh, dalal ñu waxtaan ak moom. d'accord alors euh, Abdou Khadre Ndiaye. Mhm. nekk koo xam ne xelam dafa màcc loolu jëm ci wàllu yu ni mel. Mhm. damay faral di wax naan am na fu situation di toll. faaw ñu wax dañuy bëgg di dégg ñi nga xam ne saa yu ñu àddoo rek xel day mën di dal. mën nañ caa tudd itam ki nga xam ne moom mooy Ngouda Mboup. Mhm. ak itam expert dañ leen di bàyyi xel. Mhm. Eh, bu fekkee ne élément bi. Euh, euh, ñu ñu ñu jël ko mi ngi ci ligne bi allo. Euh, daal di waxtaan moom ñu ngi lay. monsieur Ndiaye bu baax mhm. monsieur Ndiaye. ça va bien maa lay fay. mbaa yaa ngi ci jàmm. waaw maa ngi ci jàmm bu baax. alhamdulilah ayca bisimilah Ngoné. waaw ñu lay alhamdulilah ñu ngi lay nuyu ñu bàyyi la nga nuyoo ak ñi lay seetaan. waaw maa ngi rafetlu invitation bi di rafetlu. liggéey bi nga xam ne sans limite mi ngi koy def. Mhm. di approfondir euh, l' information pour les citoyens. Mhm. voilà di fàttali ne comme ni ma ko waxee rek nekk nga expert en diplomatie et relation internationales également itam nekk juriste ñu buggoon rek nga wax sa xalaat tey ci décision bi nga xam ne tey a euh, jóge na foofee ca euh, tribunal bu Ndakaaru ñeel intégration wala réintégration Ousmane Sonko ci list électorale yi. waaw euh, d'abord il faut ñu xam ne pourvoi en cassation bi bi mu amee parce que dafa am juge bu ne woon Ziguinchor mhm. le juge Sabassi Faye moo décidé woon à ce que ñu réintégrer Ousmane Sonko sur les fiches électorales effectivement léegi avocat agent judiciaire de l'État d'accordul comme ni ko yoon mayee mu dem def pourvoi en cassation euh, à Dakar mhm. pourvoi en cassation boobu ñoo cassé décision bi renvoyé ko devant la juridiction c'est-à-dire devant le juge euh, du tribunal hors classe de Dakar. Mhm. tribunal hors classe de Dakar aussi moo rendre tey ab euh, décision wax ne nañ intégré Ousmane Sonko ci liste électorale yi. Mhm. maintenant problème bi posé wu mooy est-ce que état bi aussi euh, l'agent judiciaire de l'état am na possibilité aussi intenter aussi toujours un pourvoi en cassation. d'accord. léegi nag problème bi posé wu mooy est-ce que ce ce pourvoi en cassation là aura un caractère suspensif ou n'aura pas un caractère suspensif mooy est-ce que juge bi décidé ne Ousmane Sonko dañ ko war a à partir de ce moment donné cette décision là day am ay effets juridiques maanaam dañ koy intégrer automatiquement ou bien dañuy xaar pourvoi bi bu amee euh, da day suspendre que le juge ba décidé lu mën a gun a nekk gun dañuy xaar at at di ko comme la amoon bu njëkk te à ma connaissance ci li ma gis mooy jurisprudence bi am mooy euh, que Ousmane Sonko kon ci li ma gis ci jurisprudence parce que loi aussi bu amee jurisprudence daa mooy juge à chaque fois ñu décider bu fekkee dafa am pourvoi mm. dañu gis ne pourvoi bi day day day paralyser décision de justice bi ñu xaar li nga xam ne si mooy juge de cassation parce que juge de cassation juge de droit la du juge de fait juge de fait mooy comme juge bi ne euh, Sabassy Faye mm-hmm. wala juge bi nga xam ne si moo ne hors mm-hmm. ñoom ñooy àtte fait yi mais juge de cassation moom dafa nekk juge boo xam ne day xool ba xam est-ce que respecté nañ principe généraux du droit est-ce que violé wuñ benn règle de droit maintenant li nga xam ne si ne moo am mooy euh, bu fekkee ne délai bi dafa am délai bu may euh, agent judiciaire de l'État du côté de ñi nga xam ne ñoo ñàkk procès bi ñu mën a def un pourvoi cassation plus aussi juge yi moment ba ñu leen di ba ñu war a rendre bu fekkee euh, cassation bi dem nañ fa ñu ñu ñu man euh, juge de cassation am na possibilité casser ko renvoyer ko devant une juri la même juridiction hors classe mais autrement ah. composé maanaam yeneen ah. attekat ñoo fa ne wala mu yóbbaat ko ci beneen euh, juridiction bu koy atte mhm. ñaari cas yooyu su fekkee moo am euh, wala soit tamit ñoom ñu ñu ñu casser ko ba pare duñu ko renvoyer possibilité boobu aussi man naam am donc mën na aussi ñoom ñu jëlaat affaire bi aussi dóoral ko seen bopp dans ce cas là juridiction boobu noonu day am neneen nu ñu composé composition boo xam ne mix lay doon. Mhm. sam ñu bari ñooy bokk ci affaire boobu. te kon bu boobaa bu ñu xasee décidé ab arrêt de principe lay doon maanaam dañ jël décision boo xam ne maanaam day am règle bu ñu sa fixé boo xam ne yëpp ju juge juge ne ci euh, maanaam euh, tribunaux yi ne Sénégal de grande instance yëpp ñooy euh, référé wu ci décision boobu parce que acte boobu ñuy jël day def jurisprudence te en même temps aussi day nekk loo xam ne si ne. kenn mënu koo kenn mënu koo laam-laamee. Mm-hmm. kenn mënu koo laam-laamee. ah donc il faut ñu xam lool. Mm-hmm. Mm-hmm. d'accord. d'accord kon euh, ndax déglu nga kàddu yi nga xam ne léegi rek muy maître El Hadj wax na ko par rapport ak euh, li nga xam ne wax nga ko nee nañu ñu ñoom dañuy def pouvoir kon jàpp nañu ne loolee mën naa tardeel Euh, Ousmane Sonko ci mu yóbbu ay dossier am ci conseil constitutionnel wala yoon may na ko mu yóbbu conseil constitutionnel ay dossier sans pour autant ñu xaar boobu les pouvoir xam nga en matière de droit électoral euh, délai dafa am solo ci wàllu justice mhm. délai maanaam dafa am solo ni mu amee solo ci wàllu diine boo waree julli nga julli waxtu noonu la amee solo ci wàllu justice parce que mhm. tey c'est pas pour rien mu am organigramme bu conseil constitutionnel tel délai da nga war a déposer au niveau du greffe conseil constitutionnel sa fiche de parrainage pour ñu vérifier ko tel délai da nga war a dem euh, jël sa au niveau de CDC nga am ñu jox la euh, këyit buy wan ne fay nga sa euh, xaalis foofu mm-hmm. loolu yëpp dafa am yi délai léegi nag dépôt conseil constitutionnel aussi dafa am délai bu ñu déposé ji ndaxte booy déposé ji aussi dafa am délai parce que bu fekkee ne yow xam nga ne fiche de parrainage boo ko mënta am bu fekkee ne amoo fiche de parrainage. Mm. te mu nekk une condition de recevabilité d'une candidature. boo xam ne ah. conseil constitutionnel. bu gisee ne amoo parrainage rek. monsieur Ndiaye mën na see sukkandiku pour rejeter sa candidature même sur la forme je ne parle pas du fond. parce que y a une a un rejet de fond et un rejet. Euh, sur le fond euh, sur la forme. sur la forme mooy kayit yi nga war a indi xool ko ne votre candidature est recevable. Mm -hmm. euh, sur maintenant sur le fond foofu lay conseil am un pouvoir d' appréciation. c' était nit ñi dañoo am lu mu xamul. le c'est le conseil constitutionnel mooy recevoir ay déclaration de candidature euh, le conseil constitutionnel recevoir les déclarations de candidature et ton suite et le conseil constitutionnel pour juger de la validité d'une candidature peut s'appuyer sur n'importe quel élément hmm. ces décisions conseil constitutionnel c'est qui s'imposent à toutes les autorités administratives juridictionnelles et, y compris aussi le président de la République parce que conseil conseil bu xasee décidé amatul comme tey par exemple euh, juste nga dem jooytu ko ca mais conseil constitutionnel mu waxati résultat jeex na te lii problème bi mooy euh, son ko dafa am mbir yu bari yoo xam ne da koo arrivé. Mm. cest dire benn bi mooy déjà parti bi dañ ko dissoudre. te mm-hmm. parti bu ñu dissoudre loolu déjà am na coow lu ci am ndax ñooñu dañ mën a bokk wala nu ñuy bokkee yu demee noonu loolu sax des euh, les interprétations doctrine beeg ni ñi te xalaat am na ay uute yu bokkul. Mm. beneen bi mooy aussi am na dossier justice yoo xam ne gàllankoor na euh, bari na ci ginnaawam ba léegi ba bii sax ci bokk ak yeneen. Mm. beneen bi aussi mooy. comme que moom aussi mi ngi ci loxoy yoon. Mm. te am na yeneen topp yu ñu ko topp yooyu ko l' appréciation du juge constitutionnel c' une appréciation souveraine. Mm-hmm. te appréciation yooyu yooyu yëpp la koy apprécier. te te déjà imaginel bu mënta am fiche de parrainage ku mënta am de parrainage bala nga naan naam da nga nekk kon man li ma jàpp mooy. Euh, te nag il faut ni ñi xam même sax tey suñ ko intégré woon ci fichier électoral yi sax appréciation juge constitutionnel dafay dépasser euh, le fait que ñu. nga am parrainage wala nga wala ñu dugal ci fichier parce que ici pourquoi ñu war a dugal ci fichier parce que en euh, droit électoral Sénégal dane il faut être électeur et éligible éligible mooy il faut nga mën a voter pour ñu mën voter ku mën ku mënul voter duñu la mën a voter mm-hmm. wax ji wax ji aussi loolu c'est un autre débat mm-hmm. micro bi micro bi. allo monsieur Ndiaye. oui. Euh, dañoo lii sànq benn euh, euh, benn affi benn nu mu tudduti benn benn information boo xam ne maître Bamba Cissé moo ko joxe en tant que avocat de Ousmane Sonko nee na même son fils Ousmane Sonko peut déposer sa candidature et le Conseil constitutionnel appréciera la provenance de la faute. waaw xam nga loolu pour man incompréhension amu ci. oui. Euh, le dépôt peut être un droit. maanaam mm. da ngay jël say kayit nga mi ngi mel ne yow nga bëgg dem participer ci concours. Mm. dañ lay laaji kayit doo gisee concours bees ko dee organiser da ngay dégg ñu ne euh, am na délai boo xam ne si si ñuy ñu mën a bokk ci concours bi. Mm-hmm. xam nga concours loolu da nga koy gis noonu la demee presque boo ko xoolee boo defee parallélisme comparaison. Mm-hmm. c'est-à-dire que euh, droit bi ngay am pour déposer ji. man nga dem déposer ji mais est-ce que conseil constitutionnel aussi day apprécier. Mm-hmm. day apprécier c'est-à-dire da am pièces yu mu lay laaj. Mm-hmm. pièces yooyu. Mm-hmm. su fekkee motul moom dana mën a dana mën a gaaw pour attandiku say mit mbir. d'accord même sax bu pièces yi matee tamit amoon na beneen am na pouvoir xam nga tey dafa am lu ñuy fàttee xam xam nga tey boo demee ci constitution bi ñu ne euh, il faut savoir lire et écrire ak yu demee noonu. conseil constitutionnel sax fii mu am na pouvoir jël benn livre wala dara mu jox ko benn candidat. ne ko liyal wala mu fekk ko ne ko bindal ma ah su ko mënul sax mën na rejeté candidature bi c'est-à-dire pour juste concernant le vam pouvoir maintenant pour un peu très rapidement revenir sur sur la question c'est-à-dire que su fekkee ne euh, euh, Ousmane Sonko. Hmm. ak euh, ak moom dafa ñëw ñu ñu constitué ko ab dossier dem déposer ko conseil constitutionnel bon am na pouvoir u jël dossier bi pour la m pour ne dossier bi jël nañ ko. voilà jël nañ ko léegi nag ñoom dañ koy càmbar. parce que bu naan le conseil conseil reçoit les déclarations de candidature et donne suite donne suite mooy suite boobu ñuy wax mooy soit da ko da lay accepter publier daal ne ñii ñoo mën a ne candidat mu am délai bu ñu def ne ñii ñoo mën a ne candidat. mu am délai boo xam ne si aussi euh, ci même délai bi ñu ne ñii mënta nekk candidat ñi mënul nekk candidat am na ci ñoo day motiver parce que conseil conseil bu ne laa mënoo nekk day motiver bi mu la def beneen bi aussi mooy. même un citoyen ordinaire mën na gis ne diw candidature am jàll na mu ne mu mu mu déposer recours daal na daal déposer attaquer le fait que conseil constitutionnel par exemple diw mën na ko wala wala soit ñu déclarer diw président ba pare ah, am am ku attaque parce que élection bu fekkee yow voté nga rek am nga droit élection boobu nga nga nekk ca intenter une action de justice pour contester soit ku bëgg a bokk ci élection mhm. wala soit pour contester koo xam ne gagné na ba pare ñu ne ko da ngaa parce que euh, échappe ma am waa alors que mhm. il n'est pas vraiment dans le droit d'accord